asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi tey jii di ajuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor dellusiwaat nañu fii ci kër Serigne Fallou Fall mu Serigne Aliou Fall Mbawar di ñetteelu ndogoom ci bi mu tàmbalee yóbbu ndogu ren jii muy ndogu yu am solo yoo xam ne nii mu ngi koy jëlee kër Cheikh Ibrahima di ko yóbbu kër Serigne Touba. doon loo xam ne lu mu miin la waaye nag tey dañu ñëw fekk fi liñ naan saan wu jëm wu jam ñaar lanu lanu lanu fas yéene def tey ndax kenn ci wëllëreem yi muri sëriñ xaadim jaw euh, doon ku géeju ci sëriñ Mbay Jaxate di magu murit moom lañu ñu toogal tey jii fas yéene ànd moom séq ak moom waxtaan wi tey kon sëriñ Mbay Euh, sëñ Xaadim euh, fu nuy tàmbalee tey ndax sànq dugg naa nga xuus ci àdduna ngir bàyyi xel gi war a bàyyi xel ñàkk soloom ak it dëgmal gi ñu war a dëgmal àllaaxira ak am soloom. sëñ Mbay Jaxate nee na sëriñ bi yal na nu may ak mucc may nu njariñ ak fan wu gudd ak wu wér teg ca nag di nu wis te yal na dolli sunuy xéewal te yokk nu ngëm te yokk nuy itte may nu way ci topp ndigal. li tax way ndigal topp ndigal nag ndax ngërëmul Sëñ Tuubaa la ñuy wut te ngërëmul Sëñ Tuubaa dafa laxasu ci ndigal sëñ Mbay Jaxate mi may wax nag ñu bëri xam nañ ko waaye ñi ko xamut laa koy fàttali ndax fàtte dafa yem ak ngànt dafa mat ngànt lépp loo xamut ak loo mënut ak loo narut ak loo yéenewut mën ngaa yéene mbir xam ko nar ko ba noppi fàtte ñëw taxaw fa wootu leen mat leen ñoom wootu mat leen kootaay sëkk ñoom ña fa nekkul moo tax sëñ bay jaxate fàttali lay def ak yeete ci ndigalul sëriñ Touba te mucc itam ci ayib yi wax wax suñ seex ñaar mooy ayibam ki ngay waxal nga wax ba noppi xamut li nga ko wax wala ki ngay waxal nga wax ba noppi gëmut li nga wax sëriñ Mbay Jaxate nag waxi sëñ Tuubaa lay wax danga ko xam da ko gëm sëriñ Mbay Jaxate nee bambaa ma yar may ma xam-xam ak alal ju ma lew saa wax yi duy fen ne man xam naa ne fen daganu la tax mu wax ko mag ñi dañ daan wax ne soo bëggee dégg dëgg gu lay jëriñ adduna ak alaxira na ngay déglu ku am ab reer te dañ ak moo tax mu ne man bambaa ma yar may ma xam-xam ak alal ju ma lew saa wax yi duy fen ne man xam naa ne fen daganul koo xam ne nee na murid laa mbaa mu fas ko na jóg di déglu wax yii la may wax ndax mu làq ngërëm moo tax muy liggéey ci juróom-ñaari xeeti jikko yi nga xam ne mooy sonal doomi aadama yi àddina ak àllaaxira sëriñ Mbay Jaxate dafa am xër ci adduna sàggan ci àllaaxira fàtte yàlla naw sa bopp xeeb say moroom yàkkamti ñaaw njort yii juróom-ñaari jikko xola ko yeno akum xel boo nekkee ci biir nit ñi sax lay tane waaye boo nekkee sam néeg yow dong da nga am lu doy sëkk te doo ko mën yooyu nag la lay tàggaleel cim xel ak xalaat dina ci wax wax joo xam ne danga nga ko xam te da nga ko gëm lam njëkkee daf ne àdduna loo ci gisit day wéy ndëlëf du ci sax moo tax la neex ak la neexut lépp sàmm ca ngor mbooleem la neex ak la neexut lépp day xale wéy ba mel ni lëf mu cee am àddinaa rëy war waaye nag sëñ bay jaxate dafa wax ne bul teg sa bët ci li ñëw bay fàttalay xale ñëw li ñëw amul solo lay ñëw rek moom a taxam li ñëw te xam ne dafay wéy def ko yow ne la wéy li dikkulit te xaloo ñëw def ko yow de li ñëw sëriñ Mbay Jaxate ne àddina day dox di mbas ak a tas yaakaar ak ay waru nit mag ak ndaw ak koo fu gis dunyaa ngi koy nege bis sëñ Bay Jaxate nee na ak dund yombut lu yombul ëpp naa fooye lëf na ngay waxu yiw a koy diglee def ak a fas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 loo mën di àndal lu dul ak topp yi dana dem nga dem te dootul a gis dootoo ko seeru asan jullil ca yónneen ba maa ngay sikkaroo ko xalam aw yiw fi sa xol te bul neenal sa waxtu jëfal loo mën defal loo mënul jéemal te yéene ko yow kay jéemu yiw ak a yéenew yiw mbiram bonagul sa cër yi nay jëf te saw làmmiñ di wax wax yiw njege mënoo wax ak kay jëf aw yiw xalamal suñ bay jaxate nee na loo jëf ci aw yiw lu sew-sew ak payam dina ñëw te pay ga waxtu wu dikkee sedd guyu sa xol oh, sëñ bay jaxat ne la mbay di tiis ak son lekk la jël ñoo ko def bu lëf desul ndara tibb ak seex ñu sant asal bu lëf ndara ñuy wax naan ku daan jëfu yiw na tabbi aljanna koo gis ngéeju woon a jubal yow yàlla may nu ci barke bamb mi nga jubal jubag wérug yaram ak gudd fa nag rafetal te may nu mujj gu rafet nag may ko bépp murit ak bépp jullit te may nu way ci topp ndigal li tax sëñ bay jaxate nekk ci ndigal nag ndigal dafa nekk mbir moo xam ne mboolem lu ñuy daw da koo raw mboolem lu ñuy dàq da koo jot sëñ bay jaxat ne na toolub sëriñ baa ngi nii yoolub ki koy bay ngi toolam bi moo di ndigal yoolam bi moo di ngërëm ngërëm li làmboo nag mboolem lu dee fi gërëm ni kiy ngëneeli ki barke ki faree ki dërëm ak naari góor a ki taax ak jongamaa maa ki lamam te du payam ngir ëllëg lay jox ku nekk payam sëñ bay jaxate ne sëñ bamba waayam lu bég bég balaa bég roogarot ba mu gis taaxi wurus yam am foofee lu teenu xalam waayam ji dëgg du jéggee kay layoo ak a dox buy dekk day dal di war gaalam mu teeri këram te kenn sikkul ne waayam aljanaa di këram ay gars kuy waayi kii war naa feral bakkanam ku bëgg a am léegi yoolam bii na futti ku dal toolam bi tey bay bay ngir yàlla tey rafetal ku wax ne man bëgg naa yoolam bi nag te bayul toolam bi koo këlekat day foo a kaf du ko am ku bëgg wut ku ragal daw wax ju wóor a ngi nii sëñ bay jaxat ne nag ku yàlla yee ku mujj gis dal na janoo kii biram ku bëgg lëf te wutul loolee mu bëgg bëggul kuy mus lus te dawul loolee fenal na xolam ku bëgg wut ku ragal daw wax ju wóor a ngi nii màndarga yi ku ko am koo seeru dal di ko xam sëriñ bi kenn mënu koo nax ngir dafay yëri xol moo tax ba kenn mënu koo jommal ba am ngërëmam ku wax mu dégg ku fas pas-pas mu yëg la nga fas ku def mu gis la nga def ku jóg mu xam fa nga jëm koo gis mu jóg ngir xaloo koo nax bàyyil ba mu dem buy dem di xam ne ka dee fii nax du kii du kogam amul ku muy soriloo boppam ak ay jegelit ka koy bësëg ka fa toolam bay bayee xaleyam loo def bu dee ndigalam loolaa di ngeen gis sa jëf bul def lu dul ndigalam musul lu dul ndigalam sëriñ bay Jaxate dafa wax ne fàtte ka bon fàtte dee rek ay waral nit a bew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu reew ak a bew bu dul ko nag fàtte dee kenn dootu am lu ko saf kenn dootu am lu ko soofit dee waral ku ne sew sëriñ Bay jaxat nee na koo xam ne xam nga ne dee ngi ñëw te faw mu ñëw ne nemm rek ko war ak jéem a daw yëfi ndaw tuubug moo ak yaru moo war képp koo mën a gis dee gaa ngi dàqe te day jot ñëpp kenn du ko raw lëf mët la tiisoo lu dul mooy yàlla kiy juru ay lëf mët la bëgg lu dul ju kiy juru ay sëñ bay jaxat nee na loo wér-wérit wonk bis loo tedd tedd torox loo man manit tële bis loo wax waxit ne selaw loo sant sant ne mbas loo maare maare na cam loo jag lu tawat àdduna yeewu ci yow bul bëgg nag lu fi nekkul bëgg loola du mbir adduna kër la gu ñuy dox jëm ca kër ga ca kaw adduna kër la gu ñuy jaamoo ko sonne bu wér alaaxiraa di këru xéewal lu bon du fa ñëw koo xam ne nekk na ci jub tey jii ba dee ci bu wér bu ëllëgee ñëpp ñee koo ñeetal bokk ko naw kër gii deful kër gu ñuy teddee ko tëddee di wéy ku man di fàttee ka bew bul fàtte mukk ka bew moo tax sëñ bay jaxate ci déggam nag mu ne fee jant bay fenke ak fee muy xaloo sowe man yilif ko ak laxasu yelwaani laa yemale ku dul ko bind aras xam naa ne faj ti ma lëf ku mën di ànd ak man it day mujj teg ma fële samay moroom a ngi nii tey jii di jekki fi man toroo gi booy jóg jébbal ma yàlla mi ñi ngi di jekki fi man ñuy tàppante bis ak ree te roogi bu yorot ñu dal may weer ak ay gasali koo xam ne wéttalikoo na su lëf lu dul sëriñam ak yàlla waxtu wu dee ak wéete koy la sëñ bay jaxate nee na bàmmee la raglu te moo lëndëm te doo fa des lu dul sa jëf yi nga daan jëf ay balul te bale na yàlla seere ne jéggal naa jullit bu ma mooy ku dib jullit na ma jéggal ndax raw rawale suñ cër yi ak suñu xol yi yëpp yàlla na set ba képp kuy dee boroomam dal di fa bégal sëriñ bay jaxate nee na kuy junni toppoon itam tax ci fa dee di nuyoo nga seeru kenn ku naan man maa la koy fajali baadoola ak buurayam ay biir fa dee di nuyoo du kenn fay xala am fajkat bu koy fajali lu dul ragal yàlla rek topp yàlla gu wér du faj fa dee di nuyoo laf dëgg gaa ngi ni la sëriñ Bay Jaxate nee na la ngay gëneew nit du mboolookat mu topp ci yow mbër gaa ya koy tëj a koy wër taxul ñu ko wubalee la mbër di daanay moroomam day ne ci yaramam du nekk ci wàllu yaanam yàlla xam na li lee yaflul ba def mbër mu wecc wàllu yaan ak i te bul defi mbër mu naan man ku may bëri fexee la def mbër mu doyloo yàlla walifu nit bul dof ba doyloo sa bopp gaa yi lay fexele ngir képp kuy fexe boppam lay fexee rafetal doo taaru mukk tufa poyow sa jëmm ji de kuy sang aw yaram moom lay sang sangu la yow sangal sa bopp ba neefaa kaare sang bi la te donte adduna jëpp lay xëy jëfal bu mu tee ngay kër-këril yàlla yow faaw sa doole ji bul dox di sukkandikoo kenn ak jëfam ba jëfoo bàyyil ku nekk jëfam jëf nag sa jëf dajale bàyyil sa baay ak sa ndey ak seen jëf te fexee jëf-jëf ju gën seen jëf yow bay faloo ka fale sëñ bay jaxat nee na ka tekki moo di ka baayam ak ndeyam di damoo ne kay damoo ndeyam ak baayam du tekki file baaxal baaxal ba dee fi la ngeejoo seen a koy xam te xam ne koy tagge ak kuy xaste nga yemale sëriñ bay jaxate nee na daf la da ko loolu da koo dénkoon soxna Aminta soxna Aminta Mbacke mooy mooy meññi sëñ Mbacke Madina ci kër Cheikh Moustapha al Karim sëñ Ndaam Abdourahmane loo moo ko yoroon ba mu fa demee te xam nga xam nga sëñ bi murit gi il faut ñu am luñ ciy fàttaliku li neex sëñ mbamba xam nga lu mu doon. Cheikh dama lay xamal ne nit ñi doomu aadama yi bañante dañoo jëriñante wu ki lay doo ko bañ doo ko fàtte gis nga sëñ tuwaam yi ñëpp bëgg nañ ko kenn bañu ko te kenn du ko fàtte. ki lay jëriñ Cheikh te loru la doo ko fàtte doo ko bañ nit ñi buñ jëriñante rek bëggante sëñ daam Abdourahmane Lo mii da daan toog ba xëy yeewu dal ne maa bëggoon a gis murit bu am soxla ba wax ma ko ma man koo faj faj ko mënuma koo faj ma yéene ko yàlla fay ma liggéeyal sëñ Touba ci xisa bu siiw boobu am bi mu amee ngërëmul yàlla dafa wax ne di ko sëñ Touba ne ko waxal loo bëgg ñu defal la ko daf ne ko xanaa yàlla dëbb ma kàttan goo xam ne danaa mën a dékku bépp taalibi bu sukk jébbalu ci yow ba ba ñuy wal ba uf bu defee lu luñ ko war a mbugale yàlla teg ma mbugal mu may ma kàttan gu ma ko àttani sëriñ bi dugg ci biir génn dell si ne ko Abdourahmane mu ne ko Mbàkke mu ne ko yaa ci tuddu mbugal sa borom nee na ngay naafila kaamil alxuraan gi guddi gu jot am na ñu wax ne def na ko juróom fukki at am na ñu ne def na ko juróom fukki at ak ñett kon murid yëpp amel nañ ko njukkal sëriñ Mbay Jaxate dem fa na ba mu fa demee sëriñ Abdou tey jii ma sàkkul la ndam ca yónneen ba ak yàlla ak bàmba nag li ngay wut ci ñi ñett yàlla na nga ko am te yow yàlla boo deñ di jiitoo ko dégg bu bis penc ci bàyyit bu neefaa ku man na jóg ramm yàlla na nga fa rusloo ko jub bu bëri yëpp dee walwal yi ñëw ba kenn disul yàlla na ngay mbër ma mbër yëpp wet ku ñuy ñeeka naw yàlla na lay ñeeka naw sa ndam yàlla na rëy tey te ëppit ëllëg te foo toll it yàlla na ngay jëm kanam di dog mépp ndog tey ku lëf mën ta te yàlla na fi yàggit di jëf yëpp yiw lu deewoon nga dekkal lu baaxul nga fekk te yàlla na fi yàggit di jëf yëpp yiw lu deewoon nga dekkal lu baaxul nga fekk sa mbir yàlla na gën mépp mbir yàlla na ngay defar ndaw di labiré mépp mag sëriñ Abdou mboolem li may war ci yow te aw mag manam yii bayit laa fi teg te kat doonte am naa lu dul yii bayit ma fab jox la santal te ñaanal ma nag geesu soxna si mu toog soxna Aminata Mbacké mu ne ma jox fi Aminatu dénkam bu sedd xolam ngir yàlla ak yónnenam ak bàmb mii di magam yow soxna Aminatoo yeewul te sant gërëm cant ngërëm moo la war ak roy sa mag ji ci ngëm koo seeru may ku sa yëf yow mii te naagu yëfam jéggal ko gépp moyam li rekk moo di sa ndam ab sang day muñ di jéggal ñëpp mooy te du moy te doylu doylu gu wér walis ku nekk yëfam ak canga ngi lu ko moy du cang ndof la gu rëy li ñëpp jëm léegi def ko cang yow bu ca jëm jëmal ci yàlla te doyloo yàlla ak dogalam bul fàtte it senn saa bis ci baaki mbiram sëriñ bay jaxat nee na bu nit ñi dee fàtte dee kay bég ci àdduna ji sabal saxel teg ca dee ak yàlla yow taxalam bul soxla woo lëf ci duniyaa ji lu dul jëf yiw ku nekk day mujj wéet ak ay jëfam ci paxam loo saytu dem ba ko mbaa sax loola dem bala yow sa jëf ji nag du la baakay dem te doo ko ba dem sëñ bay jaxat nee na boroom yi yëf dana tàggoog ay yëfam bu rafet boroom yi jëf nag du tàggoog ay jëfam fu mu jëm fabal sa jëf yi li ngay àndal defar ba mu jàkk koo gis jëfam ji la am lii rek moo ma taxam sëriñ mbay jaxate nee na bul déglu kenn jëfal bul geesu kenn dawal ku dee ñu fab suuli fee delluy wax ak ña fa des wëllëre mut la fas koo xam ne kii góréwul àdduna nag góréwul ngir ñëpp lay xalambas day dox di mbas ak a tas yaakaar ak ay waru nit mag ak ndaw ak koo fi gis duniyaa ngi koy nege bi sëriñ bay jaxat ne na duniyaa soxal na ku nekk sox bu rëy di ko nekk te sox bu tàkk ba ñuy rët mu soxal ña fa des soxam bi képp ku am ak ruu mu jib ci sa kaw ku dul ka bind aras day mujj xëy na melas xamal na yàlla ka bindan rek a fi xala des nde picc sax du fu des nan dëddu àdduna mbas koo xam ne kii boo ko jubloo it mu dëddu la yow moo tee nga koo jëkk far ci dëddu ndaxte mu rus sëriñ bay Jaxate nee na as ndaw bu lay woo ko nax ngir bëgg a lekk sa yëpp bañal ta daw ne ko eh xam naa lu bon li nga fas adduna as ndaw la suy ndax wépp far wu ko nopp te wépp far wu ko nopp doo jël te doo dese tus musulul naxam yi te def nax koo nax ba def ko fir firdaw si kon yow nga jaayu xottu jënde wurus firdaw si nag moo di ndaw soo xam ne sii du la nax te ndaw su taaroo ne moom it bët gisul ku ko gis as ndaw la soo xam ne sii giñ naa ne soo ko jëlee am yëf yu gën yi ñu am mos yëf yu gën yi ñu mos xamal ne si moo gën fopp àdduna ngir Firdawsi kenn du fa jóg àdduna kenn du fa des jàngat nga béyi doowu xamal ne Firdawsi moo gën fopp àdduna ngir Firdawsi kenn du fa jóg àdduna kenn du fi des moo tax mu ne adduna yow waxal ak say far yu dof yi la nopp xamal ne man mile firdaw see di ndaw sama nopp mboolem ku lay nopp xamul bon bon yi làmb ci yow ku xam sa bon bon yi dal lay def ni mbedd mu nëpp mboolem ñi lay nopp dañuy réere bon bon yi ja maanaam xoolal ni firdaw si gën foo xam ne kenn du fa jóg ak foo xam ne kenn du fa des diir su gàtt sim lay naxee nag ci ni ma la ko waxee woon xeeti xéewal yu yu jàppandi yëpp lépp jàppandi ci technologie bi nga xam ne kenn menn xel mu mu defaru fi mu ne mënatut mënatut xaar xam nga li gën a dansel adduna booy kenn ñi ëpp ci nit ñi dañoo mënatut a xaar ndax tàmm giñ tàmm problème yu gaaw yi masalan oto bu gaaw ngay war dem Dakar léegi ñëw soo bëggee wax ak ku nekk France wax ak moom léegi ci weñ su tuuti nga wax mu tontu la nga dégg kenn dégg moo tax maanaam xaar bi dañ koo mënut a def te yàlla fokk ñu xaar ko ndax du ñëwee fi fi nga bëgg mu ñëwee fi du fi ñëwee fi mu bëgg a ñëwee lay ñëwee moom. Hmm. laa yuxliful mihaada moom du du wuute benn waaye nag problème bi fi nekk mooy fi nga bëggee mu ñëwee fi dul ñëwee xam nga yàlla bu fekkoon ne si léeg soxla ko coxla soo xam ne bu fekkoon dafa nekk fee nga ne ko ñëwal su dee ñëw tam léeg ne ko waaxu si ndax da ko yàkkam ndax léegi nag du ñëwee waxtu yi nga bëgg mu ñëw bi nga bi nga bëgg mu ñëw moom du ci ñëw waxtu yi mu bëgg ñëw lay ñëw moom waaye nag dana ñëw yar sam xel nag ni ko sëñ bi daan defloo di ko defe di ko defloo sëñ Mbay Jaxate di ko defloo nit ñi bëgg nit ñi tàggatu ci seeni xol ba am tawxiid tawxiid moom boo ko amee dara mënut laa jaaxal ndax ci la lépp nekk sëriñ Mbay jaxase nag dana résumé boole maanaay tawxiid ndax lenn lu ci nekk benn bayit bu nekk day ab sud lay doon da koy ubbi ci sam xel lala ci yàlla wan nga gis ca lu ci tooy fukki bayit ak ñaar dëxëñ na ci biir tawhid loo xam ne mën ngaa jàng junni téere yi yoo xam ne doo ko dégg ci wolof daf ne yàllaa ngi yor lépp lu jaamam di bëgg ko wut moo dàq fab loola dal koy jox fa saasa mu yor lottul ci lëf waande mboolem lépp luy xala am sàkkal na koy saaki waxtoo ki sabab yu ko jur mënoon na bis boo jógee yow mii di tàmbali mbay mu dal di màggal sa mbay moomee ci bis ba mu ñor sëñ Mbay Jaxate nee na mënoon na bis boo juddoo yi dal di toll ne sa ndey te dal di toll ne sa baay sëkk nag bala jur mënoon na laa dal di fab yi teg ci aljana jee te xam ne doo dox ci wàpp ak deeki tii sëkki lor mënoon na laa dal di jox tey jii sa mépp mébét sa xol ne guy yu te dootul war waree ki naqar te mën na laa dal di dàkku lépp loo gërëmul ngay mucc kay musle foo jëm far di mbër mu ñu far te mën na laa fab ci saa sii teg ca kaw ña ca kaw nga mel ni ab jant mboolem ñëpp suufe la far yii yëpp mën na ko mën naa def lu yi la loo gis amul nag da ko sóobut te xam ko bu wér bul bëgg nag lu ko sóobut bëgg loolu du mbir ku bëgg lëf lu ko soobul ñàkk ndam moo si yar njegam da bëgg bëggal yar bu mat bu rafet bëggub yaray mbir wutal ab yar te def la la war suñ bay jaxat nee na ku ñàkk ab yar mosob yar faaw ab yar a gën raasal ma ab yar ba gis koo gis nga sëgg te for te lëf du ab yar lu dul santub dogal te gërëm ab àtte yal na nu for ab yar te jàpp ko yor sëñ Cheikh koo xam ne wuute du wuute du xef tëlewul dara bu la joxee te joxuma ñàkk jox gi ñàkk a jox tekkiwul ne dafa amul lu ma jox coobaree ma tax joxuma te ku mën a jox ak lu ko mën a jox fii sa xel a ngi ci moom lam ko jox lu mu bëri bëri boo xalaatee ne moo la jox moo ko jox jox kooka jox keneen te jeexalu fii sa xel gi ci moom keneen du la jaaxal kon wax mbir mi ci yàlla sunu bool subhaanahu wa ndax sëñ Tuubaa sëñ Mbay Jaxate def ne ko yàlla di mbër ku ko def mbër nag mu def la mbërëm musal la ci jël biir ak bi te saytu sa mbir yàlla moom boo def boo ko defee mbër ba mu def la mbërëm yàlla moom bu la supporté dootoo daanu nan nga koy supporté nag kenn ku ne xam nga na ngay def sa mbër bàyyi ko xel rek. bëgg ko di ko faral boo fexee ba yàlla faral la dootoo daan taalibe yaa ngi nii di xëccoo sëñ bi du jeex taalibe yi tous dañuy fàttali li ko sëñ ba jaxatee fàttalee dañuy xam ne sëriñ Touba li muy neex neex li riir mi bëri bëri fi mu ne li wéy li ci des ko ëpp kenn ku ne war naa bàyyi xel ne li des sëñ moo ëpp li wéy te yëf yaa ngi ca kanam te moom dafa wax ne sama tey ju ñëw dana gàcceel sama démb ba ñuy wal bufta bi te kenn nit kuy am téeméeri ak amul kon moo tax xam nga lu xew góor góorlu ci moo ci des sëriñ bay jaxate ne jógal farlu ngir yaa ngi ci lool li yow te ab lool li buy wéy amus la fi jafe njegam réere nga ab lool li lool lee ngi nii wér ak dund ak doole lool lay jafe ku sab lool li ñëw nag ba sa yëf ne xus la gën ngay ko yombul ku maasam jafe sëriñ Mbay Jaxate ne jëfal guddi jëf bëccëg ak sépp saa ba koo seeru naa kii jëfam yee jafe ku def nii ci sab lool yi doo jeeli yëf bu nooree te doo xaar yeewoo jafe bu dul kon ngëmee na ngëlam koo fu gis ma ngay farlu ngir xam ne lee jëf jafe bu nit nee lasar ñëpp naa dootu jóg mu xemmee ma jóg jëf te jóg jëf jafe ku jëm ci jatay romb xaalis di wéy bu yeggee di gis yëf ya tëg njëg jafe xarit dëgg ngooral ci xaalis bu yow te kat léegi seerub dërëm sax jafe ngiruk mag akuk ràgg akuk dee ngi ñëw bu ñuy ak si jëf lu bon bon jafe te defal yàlla as lëf bu mujjee jafe amus lëf si yàllaa te gën koo jafe sëriñ bay jaxat nee na bakkan yeenu tee dem de kon leenu dem dogonteeki bakkan ba tey ñëpp dem ku jóg jëm ci aw yiw bakkan dal di fël mu far jekki seytaane def ko laram sëriñ bay jaxat nee na nanuy def nanuy def nanuy def ba raw bakkan mii fëlee kay teree am ngërëm te kenn amul ndam ku dul waaj a raw bakkan raw gu biir kooka moo làq ndam bariwu nit akub xaalis taaxi kow te moomoo bakkan lii du faj lëf ndaxam ku néewi alal ak ku néewul alal asal seeni bàmmee la xalte teyam ku xam sax du def ay dërëm muy alal la muy def alal moo di sellug jëfam ku xam it du fab nit di def wéttalam boroomam ba lay jàpp def wéttalam bariwu nit akub xaalis taaxi kaw lu muy faj te moo moo bakkan bariw nit akub xaalis ak taaxi kaw te moo moo bakkan lii du faj lif ndaxam ku xam sax du def ay dërëm mooy alal la muy def alal moo di sellug jëfam ku xam it du fab nit di def wéttalam boroomam ba lay jàpp def wéttalam sëriñ baa ngi wootee ka waaru ñoñam aku ak ay digle ak tuub akuk jëm kanam jubal nay biram not na ay noonam it mi ngi nag di sàkkoo jubal gaa yi gëm defar nag saxaaram ba dootul ayib ku war dal di raw ab kemam jot magam ah ku jog dugg gaalum ndigal gii di wéy te génnul du wóoloo lu yegg teerum ngërëm te tey laa fasoo dugg gaalum ndigal di wéy nag ba jot bépp teerum ngërëm te man dénk naa kat gannaaw ak kanam sëriñ bi bu wér doy na nag maa ngi dem Cheikh sëñ Mbay Jaxate yend woon na tindoo di dama koy fàttali gars yi ndax dafay am njariñ ci mbir mi sëriñ bi du lu ñuy bëmaxante du lu ñuy buuxante ñi yaakaar sëñ Bàmba ñëpp xajuñu ci dëkk bi Tuubaa xajuñu fi kon xajuñu ci néeg kon xajuñu ci kër itte ji la Cheikh Moustapha Karim sëñ Mbay Jaxat dafa yendoog moom fii ci tindoo di ba ngoon ba muy gont mu gis ni ñuy doxee mu ne sëñ Cheikh Modou Moustapha al Karim ma damaa bëgg a wax ak yi mu ne ko bisimilah mu dal di dem ni leen ma jóg defal fi gaa yi tindoo di bayit yu rafet ndax seeni xol sedd seeni itte yëkkatiku yittee di koomu murit mboolem murit bu ko am sangam gërëm ko la muy wut lépp jàppandi wut leen it yu rëy sàkku yi ngërëm fexe ndam te sopp seenub sëriñ toppi waxam te jako dab leen a dab ngërëm tey sàkku faw yu mbégam te lépp lëf lu mu bañ daw leen a daw sore ko mat nab sëriñ yéen mat leen i taalibe nag te yeesalu tuuba ko njébbal akuk bàyyi ko sëriñ Mbay jaxat ne na jëm leen a jëm ca kanam mboolem lu dee fi mébét ci jëm kanam la ko dee fa làq sikkuma ko sëriñ Mbay Jaxate nee na kem lu murit jëm kanam gën faa jegeb sëriñam gën faa defab xaritam yow sab sëriñ jege ko waaye sëriñ Mbay Jaxate nee na jegeb sëriñ bokkul ak fu xoolee gis la fa kat ngay xool ak ay déglu waxtaanam te santu la ko jegeb sëriñ moo di yow mi toppatoo ndigalam te lépp loo xam ne bëggul loola it nga ba ko sëriñ ka aw ndigalam moo nekk ci wanagam ne ci xolam ab sëriñ kay mooy ndigal safu ko yow doonte yaa nga ca manding tey jëfey ndigalam yëgal na yéen a ngi riisoo yàlla seede na ko te donte yaa ngi fi poojam tey moyit ndigalam seenu diggantee fu sut ndar lii ka bon moyu ko tey gaa yi tindoo di seenub dénk mat na mi ngi nun ñëpp yàlla na sunuy bir jub te yëkkatiku. jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf euh, xam naa waxtaan wi am na solo waaye li ñuy wax rek njaabum gileem xajul ci waañ te it comme danoo ñëwoon fii ngir euh, ci ñetteelu ndogu yi fore fi lii li ñuy def rek mooy dañuy joxewaatub joxewaatub daje ajjuma jii di ñëw ndax lii mooy alali murit yi nit mën nga koo reggal ci ci ci ci ci aw ñam waaye mënoo koo reggal ci xam-xam kon ñu ngi sant bu baax di gërëm eh, xam nga bi ma la waxee ne la bi ma sëñ bay jaxat ne yittee di koomu murit mboolem murit bu ko am sangam gërëm ko la muy wut lépp jàpp waaye fii tam dafa wax ne murit bu yitte ja daanoo mët la waarati sax ngir jom ja jeena amul soxlaati far ci lu baax murit bu yitte ja daanoo mut la waarate sax ngir jom de jeena amul soxlaa te far ci lu baax kuy waare muy wecc mecc too koy randu lëf du ko saf lu dul ndox ak lal bu nooy ak ñamu sell bu baax murit bu mel ni la mat lay muslu faw wut faw bokka daw ngir day joxe ràgg kay wàlleekatee nit a baax mat nay ragal mat di daw waxtaanam ak barabam baaxul te képp koy déggal du jëm ci lu baax boo dee wutug yegg bul wéet ak ku yitte jorot murit bu yitte jorot doo gis mu wax la lu baax nit ñëpp bokkuñu yem jëf yëpp bokkuñu yem tànnal ci nit ñi gën tànnal ci jëf yu baax bul ànd mukk ak ku dul koo xam ne kii dana tax ngay yokk yitte di yokku di yokkum xel di yokk lu baax koo xam ni kii ànd ngeenus lëf mu wàll lëf bul ñakku yow ci ku bon ñakkul ba jar ci ku baax ànd ak ku yokk ci yow aslëf lu bon bon a gën ànd ak ku wàññi ci yow aslëf dikkal ci lu baax dégg nga ko noonu la <laughs> kon xam naa daal euh, noonu la ñuy def rek fas yéene ànd ak yéen leen ndogu yi nga xam ne nii moom la Serigne Fallou tey jii eh, waajal tey jii mu jóge kër Cheikh Rafal jëm kër Serigne Touba jërë ngeen def. <laughs> Thank you. asalaamaaleykum. waaleykum sëriñ bi mu ngi leen di nuyu bu baax di jot li kàddu cant ak kàddu ñaan bu jëm ca sëriñ ba ngeen bàyyi koo di sëriñ Fallou sëriñ Fallou Fall sëriñ bi da wax ne liggéey bi agsi na mel na nu raw nam daa mel te nee na kanam rekk lay jëm nee na nag soññ bi moom a ah, dafay mel ni keroog ci yéen kenn ku ne ba nga sukkee jébbulu ci moom na ko jox na la sama bopp adduna ak àllaaxira nga jaayante woon Baay Faal nag bu jaayante akub sëriñam kam war a roy mooy Seex Ibra ndax sëriñ bi léegi wax na ne Seex Ibra bi mu fi ñëw fekk ne fa ay góor waaye dafa sëriñ bi teg ko fu ko kenn tegut moo tax sëriñ bi defal ko lu ko kenn defalut lu mu defalut kenn kon kooku royukaay la koo xam ne ku sukk jébbalu ci moom war ngay roy ci moom di moytu ay tere di diglu ay ndigal te fas yéenoo yeesalaat seenu taalibe ci sëriñ bi nee na naam taalibe gi rafet na lool waaye dagg daa munta ñàkk ci ndax liggéey bu mel nii ku ko liggéey bandi ko ci kanamam sëriñam dis na la dagg dagg ba mooy nga ngeen laxasaayuwaat gën a góorluwaat gën a jaayantewaat ak Seex Ibra fas yéene bi li Seex Ibra di seddale kenn du leen ci ëppale ndax sëriñ bi wax na ne sëriñ Fall doom kenn du ko ci ëppale yéen ñi ànd ak moom itam wax na ne seenub cëriñ ci loxob sëriñ Fallu ngeen góorgóorlu ba kenn du leen ci bu leen xool fenn bu leen bëgg dara bu leen wut dara lu dul ngërëm sëriñ fallu nee na fas na yéene dana àgg te yéene ànd moom liggéey bi mu koy liggéeyloo nee na tàmbaleegu ko te wax gu ko ci dara te fas na ko yéene liggéeylu te yéene koy ànd ak moom ànd bi nag pas-pas mooy tax ngeen ànd koog moom koo xam ne da nga ca jaayante moom am ci pas-pas da nga ànd ak moom ci liggéey boobu bii kenn ku ci nekk na nga defee ne liggéey bi sëriñ bi sëriñ bi bëgg a sax sëriñ Fallou yow yaa ko bëgg a def loolu koo ci fas rek sëriñ bi dimbale la ndax bi moom wax na toujours ne day wax toujours ne Serigne Touba nongo na teel a xëy waaye nongo na daw fajaru dabe ji loolu mooy maam yi xëy nañ rañaan daw toppi Serigne Touba waaye ñun ndaw ñi buñ fajaroo daw da daw dañ seen pëni mag ña loolu nag mooy lii nee na lépp nag mi ngi leen di seeral lam doon wax ci soxna si rek moom noppal na ko ci gépp fànn ndax fam ko teg ma nga fa ma nga fa toog di woye ay ndigal di moytu ay tere sëriñ bi ne dana ko jàppale ci saahir ak ci baatin noppal na ko lool kenn mu sañoo fi moom di ko lagan dara fa mu fa mu teg fa mu tegu xam ne sëriñ bi xam na ko te bàyyi boppam sëriñ bi sëriñ bi ne soxna si fa àgg te ànd ko njaboot gépp mi ngi ñaanal fallu li seexoo di séddale yàlla a amam ndog war ca amub boobu bu dikkee yàlla bu ngeen xool benn cër bu du fallu ci Seex Ibra asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ya rabbana salli wa sallim sarmadak على الذي سميته محمدا يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وأبله جملة ما تحتار له لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالي أم بجاهه ذنوبي وأبل من يقرأه أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتب وأبل من حفظه أو حصله بأي وجه بنبي أملا يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وأبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي صرت له غير قديم يا ربنا قلب سلامك لمن وابتلي بجاي خير امن يا ربنا مد سلامك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر قليلك الخبيب بقمتي وكل صالح لبيب امين يا ربي بحق وجهك يا